la taallaqa naja min kadri dunia wa fi yawmi naja nan ko wuyu comme ku ko wuyu mucc bu ëllëgee bu fekkoon ay njaaxum rek ci nga nekkoon bu ñekkee malaayika bu nekkee Serigne Touba la yaakaaroon mucc nga waaw ñu am ko ci réew mi du tee ku amul sëriñ Serigne ba baax na mi ngeeg dara jaam ak yëpp waaye kii da bokkul jutta bi mu mufradin lanaa faaxal jumal xutta lanaa mu jëla jey seen waa amal bokkul fenn ci benn rang bu ñu tegoon pouvoir am darajaam ñi jox dara ji ñëpp ñu boole leen teg ci mu wat leen kon ci il est distingué ñu am ko ci sunu réew mii di dugg ci caaxaan yii am jàppal bàyyi nangam ak ci nangam waaye waxoon naa leen bayit bi mu wax léegi parce que loolu mi ngi jógee ci tubaab yi chattaana ma bayna lazi xad hazu waaw loolu lañ ci nekk de parce que pouvoir bi iblis moo ko coiffé maanaam pouvoir colonial iblis a ko coiffé waaw ni nga ko bëggee rek ak ni nga koy nan nga koy réussir amul loolu génn bokku bëliwuñ ci yàlla te lillahi mulku samawati wal ard ku ko fi am moo la ko jox moo ko joxoon Souleymane jox ko moo ko joxoon Daw Daoud baayam hmm? ñu cumuler ñaari pouvoir spirituellement temporellement fii nag bu ñu xefee foofu lañu jëm fii bu ñu xefee bu ñu xefee ñoom nguur gi dana koy jël ba noppi annulé ko duutu duutu exister indi nguur bu bees tax duutu du boo xam ne du doon nguur du doon nguur liggéey lay doon liggéey liggéey waaw waaw chef d'état bi sax mën na tudd la gardien wala waaw mën na tudd la gardien mën na tudd alxadim xadim le serviteur nangam ak i nangam waaye président nangam pro asaw yi moom président yi moom kuréel bu nekk am na président président moom du turu dara xanaa bu Macky président de la république waaye <laughs> turu président moom kuréel boo gis rek am na président xale yi étudiants yi mais étudiants yi maa ngi leen di sant surtout mouvement bi nga xam ne Mamadou ñoom Ali ak ñoom Sidi ñoo ko jiite parce que wax nañ ma loo xam ni daal dal na sama xel ci étudiants yi waaw ñoom fas yéene nañu rencontrer étudiants yi ci Sénégal yëpp ci vacances yi waaw pour ñu xool violence nan la mën a génnee ci université yi loolu du xam nga lu kii maa la loolu benn étudiant daaw ko xalaat ñëw nañu fi ba wax ceeb na. déet bul tëj déet da naan may leen ma ma wax man bëgguma tëj ah waaw may waaw waxaat. déedéet may tabarakallah hmm. waaw hmm. waaw loolu bàyyi ma bàyyi dogguma la de mais comme c'est du passé da nga may bàyyi ma wax li ma ci bëgg xam nga loolu weesu na léegi nag dafa am fu ñu toll waaw maa ngi lay sant nag ndax yow fàttali nga ma loo xamante ni bii faw ma wax ak ñoom mag hmm. mooy waaw léegi xaaral xaaral xaaral ma tontu ko moom dama kontaan ci moom mi parce que yéen ñëpp laa kontaan gaa waaye dafa laal foo xam ni dafa laal fu ma intéressé ñoom mag yi li ñu war a def wax ministre de l'intérieur parce que ñoom am nañ kara sécurité am nañ récépissé <laughs> légal nañu nañ leen wutal foo xam ni nañ leen récompenser ba ñu nekkee ci kaso bi man maa daan sonn ci mbaa bokk naa ci ñi doon sonn ci di leen fayal ay location hmm? waaw ba ci neuf yi mu jegeen barki démboo Njaay waaye li taxoon ma ni la li taxoon bëggumoon a dellu ci gannaaw parce que dafa am ñoo xamante ni bii dafa am ñoo xamante ni bii ñoom ñoo taxawoon wax ak Macky ni ko faw ñu jëm si ci sama kaw ki ko njëkk a proposé dafa am ku mu yabal ci benn sëriñ sëriñu lasraar pour mu laaj ko ndax suñu ma songee ndax réew mi dina yëngu fekkooku bi mu waxee Macky Macky def na ko ah loolu teen bañ na dugg cooy mu ne ko président kii bu ñu ko seetaanee nanga Macky nangam damay bañ a tudd turam di ko sutura ñoom ñëpp laa xam waaw groupe bi nga xamante ni bii ñoo togg waxtaan waaw ngir ñoom ñu déstabiliser leen humilier leen def leen li ñu leen def nga xam ne bañ nekkee ci kaso bi ba léegi seen doom yi ñu daan ñi daan ñi ñu daan éduquer seen doom fu ne jooytu nañ fu ne jooytu nañ fa léegi nag bëgguma sax loolu dugg ci détails yi parce que <laughs> Macky moom xam na ni xam naa lépp xam na moom xam na waaye li ma bëgg mooy état ci boppam reconnaître leen waaw bu ñu leen mënatul a récompenser Ablaye Wade xam na ko fii ba mu fi nekkee ca méridien président ni li nga man ci ndaw ñi ñun mënuñu ko ñun jàpp tëj leen man na nga ma ki nanga ma Macky wax na ko fii ci ci fee fee ci 31 décembre bi ba mu nekkee premier ministre xaw ma ba mu nekkee ah ñëw na fi wax ko ah ministre de l'intérieur waaw mu ngoog léegi nag man yooyu yëpp parce que man yàlla dogal ma bëgg ma bëgg yu ñu naan dafa metti dafa metti mbaa dafa jafe waaw waaw loolu tax may wàññi samay at nii di wax ak yéen maanaam man bëgguma lu yomb waaw tey kaso daf maa neex dégg ngeen li ma wax ca fan yële waaw man nekk naa fi Serigne Saliou nekk fi ma nekk Paris hmm? boroom daaru sama rak nekk fee moo taal yóbbu leen Louga ñu def fa 6 mois 40 la ñu woon te sëñ Saliou ngi fi woon te ak ñaan la leen yónnee maanaam kaso doonul ñun lu nu nuy kii ñun ñëpp ñun ñëpp ci kaso bi lañu war a dee bu nu goree comprendre ñii ñoo ma umpale rek ñoo ma xamul ñoom mag yi ñii ñoo ma xamul waaw mais am na ñu ma xam boo demee ci sëñ Muntaxa xam na ma nga dem ci sëñ Moustapha xam na ñaar ñooñu doy na am ba ci des ñëpp sëñ Mamor mii ma waxal dem mu sëñ Murtala xam na kooku moom na ko ñëpp na ñëpp ñaanal sëñ Muntaxa na ñëpp ñaanal sëriñ sépp mais sëñ Mamor bu sëñ Murtala ni ma ko beralalu ñaan jàmbaar la jox ne boo leen teew ciy wax non non non bonentew ci wax fermement ci lim nekk la nekk avec constance ba noppi nag <laughs> dara nekk ca bopp ba loolu daal moom sant naa leen journaliste na bëggul ku ko jox xaalis waaye yéen ba mu jox leen xaalis waaw waaye eh, ba leen